di leen nuyu di lu di leen sant tey jii ñu ngi fii ci Goudiri ci ndigal président de la République Macky Sall ki nga xam ne mooy chef suprême des armées te ci gis-gisam nee na suñu armee dañu war a assurer suñu propre sécurité waruñu ko bàyyi ci yeneen loxo looloo tax mu confier ko suñu kilifa. armée le chef d'état-major général des armées Birame Diop fi taxaw sama wet le haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire le général Jean-Baptiste Tine le directeur général de la police nationale monsieur Sy mais en même temps le général morsec Seck mi nga xam ne moo nekk ci kaw ci tête euh, bopp euh, sapeur pompier te liñ fi gis tey mbégte bu rëy lañ fi jël ndax professionnel lañ fi gis expertise lañ fi gis te xam-xam tamit la ñu gis ci lu jëm ci wàllu protection ak karange population yi dana wax ne tamit que le président de la république lu mu bëgg mooy di sénégalais yi nañu xam ne que seen sécurité ñor na ko ndax Sénégal réewum jàmm la te dañoo bëgg loolu mu yàgg loolu pour mu yàgg force de sécurité et de défense ñoo ko mën a assurer looloo tax maa ngi gërëm population yi fi nekk di gërëm kilifa diine yi ak kilifa aada yi di gërëm tamit xale yi ak jigéen yi maanaam population di Bundu pour que puisque ci Sénégal oriental la population di Bundu mais population tamit di Niani di Wuli e di Gadiaga parce que ñëpp lañ fi gis tey ci soutien bi nga xam ne yéen ko apporté suñu armée daf leen gën a tax ñu gën a engagé parce que xam nañu am nañu seen soutien di leen wax ne tamit. li nga xam ne gis ngeen ko parce que sécurité ñun ñëpp ko bokk karange suñu affaire la du affaire force de défense et de sécurité rek ñun ñëpp ko bokk donc di collaborer ak force de défense et de sécurité yi day gën a tax ñu gën a défendre Sénégal